Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. Wa ana Marichou <laughs> téléchargez l'application Marodi TV pour regarder les meilleures vidéos du Sénégal. Bisous. defal naa ko ma wax ak lan ngay wax ak man. yaay defal naa ko ma expliqué la après naa génn sa kër. waxal li nga wax te nga génn aw sa jot waxal. yaay gis nga situation bi nu mu la jaaxalee keroog man tamit noonu la ma completement j'étais complètement bouleversé xaw ma woon sax nu mu demee. Nabou keroog jël na ay bagage am ñëw sama kër yenn heure yi mënu ma koon dàq jigéen la. yéen a mën a nax seen bopp yaa mën a nax sa bopp yow siir yow siir yaa bon. Siria ñàkk jom Syria ma bet Syria ma décevoir. yay balé wax. mais lan nga bëgg moko Sir man Sir xàmmeetuma la man dama lay xol nan yow la wala du yow yow Sir budé diiné diine mi ci yow budé dee yar def nañ ko ci yow Sir dañ la ju fañ la wara a Sir war nga mëna dund nangu dund gi nga dund ni sa bir kër ko xamné du sa jabar ha ah, nga nek ak mom ni ñun lool du suñu sharia ay yay bakkar bobu xam nga la moom nan la toll Sir ha ah? ñi wax mu nan na ay naaw dafa ñew indi ay bagage duñ lay waxal sa faiblesse gi len nak naa la ko xamal gis nga li ngeen def gi bu len digge ma xamne ay mbeur ngeen. bay li ngay wax waxuma dama jël la sa na bu yaay bay li ngay wax. waye man sama xol bi nga tangal sir billahi bu la digge ren ba deewon ma xamne mbeur mbër nga. loolu andiwu mo lu tax ma ñew fi tay grossesse su bi dafa am problème te docteur bi neena ko mu avorter te Nabou nangul eh may ma. yaay ñewal nga wax ak dama ne gisagu leen dara bu dee man do sama dal bi du yow du naw du kenn ku ma jaral ma jël sama tànk bi sol sama dàll dem di leen fekki lu nee nga docteur nee na ëmb dafa am ay complications leen dara yéen da a yaakaar yi ci yow naw loolu ngeen yaakaar ni ngeen toroxale doomu jàmm ji xam ngeen ne du ngeen ci mucc de yow leen na nañ bi du ngeen ci génn yaay doo si def daal lu ma ciy def jaraloo toog ma siif yow un franc ma sol sama daal dem di ko def demal nag àddina ak seen kanam gis nga àqu mag yi bu leen dalee billahi ma xamne di ngeen yakule man nak sama xol bi nga dekk ci di ko rek sir ah sama xol bi rek nga dekk ci di ko dama duma la ñaanal lu bon de duma ko def muko def muko defé man may sonu après waye dama pare nga li nga doon wax jogol nga rombat man ni te sa problème lijjantil ko sa jogol jógal dama ne nga jog te buma waxati yaay man moppee na doon sa yaay ba nga doone sa kilifa bop jogol dama résoudre sa problème sa bopp demal li denc ko sa bopp gisagu leen dara gisagu leen dara yow na bu demam ay yolos yolos si kama msabamia yani tanibba mm. na nabu xam nga sama digënté sir nak expliquer na ma lepp nabu si da nga eum doom te xam naa tu vraiment mais nabu grossesse bi ni mën la indi ma lay rassurer ci benn affaire su fekkente ne ci loolu kese ngay dute gis nga grossesse bi soo ko avorté man gëm naa ni si dina la takk te su la takkee di ngeen am ay doom fondé seen famille te yaakaar naa ni seen diggante foofu lay gën a neexee mais nga téye grossesse bii nii ça ne t'avance à rien sa bakket moo nekk en jeu loolu il faut que nga comprendre ko je t'en prie man maa la ko ñaan bu defal li médecin yi wax. rus naa lu torop mais gis nga bébé bi ci man la bokk ma ñàkk sama bakkan moo ma gënal ma dindi bébé bi. man kawteef ak may bëgg a dal quoi man damay bëgg a jommi wala lan moo xew ba du xoolal keroog maa ngi dem këram mu may woon ni génn na hôpital ba wér na ko man wala li ma sëriñ bi waxoon man moom laa deful man ñaan baalo complètement daaj naa mais def naa lépp li ma waxoon xëy na li daaj bi eggul la wala. wala mbaa sëriñ bi ci boppam sax moo commencé léegi nekk cuune di nelaw te fi mu nekk nii dafay nuroog ni baru nag mi may bëgg a bopp. no li duma ko setan il faut ma dem ci mara bi wax ko bopam gën ko leeralal sama digënté ak man limay dox ki defe naa ba légui ni non dafa comprendre bu baax quoi Dalila hmm. Dalila pour, pour daf maa bett ndax Pod mosuma yaakaar ni dina dem fenen di fa uttee bànneex lu dul ci ñaar jabaram Pod yëfu góor la def dafa sàcc

su ngeen ko bàyyi na ci àll bi muy taxawaalu yaa say wujj mais ngeen di taxaw ah, alal ko sàggan lay doon de te ku farloo koy for mari delloo sa xel ngeen jël jëkkër sànq ko sutura fat ko si biir kër gi gi gën ko xottoon bu mu ko xam est-ce que sama xol mayet na ma may sekk dara ak portaale daal lu tax du la ko may lu tax du la ko may li day dara ëllëg ngay sëy sëy bi li may sëy da ngeen yàgg say jaag-jaag def say façon rek yàgg say cuuraay say sëy baa ngi nii potu lem la li ci kaw doo ngay lemay da ngay suuf dangay ngay jekk bi ci suuf muy ay neefere doo tabax sa tabax ba mu yegg bañ ne yeeg fondement la nga bëgg ko bi de te wax bàyyi wax bu mu sedd ngeen fat seen jëkkër ngeen téyewaat loolu laa lay diggal loolu laa lay diggal Marie anglais mba des bàyyi naa la sa Je ma xam Chabi. Oui. Ah, j'ai une surprise pour toi. Comme d'habitude. Ah ouais. Hein. <laughs> Toi, tu changes jamais. C'est tranquille. Devine quoi Quoi On va en lune de miel. Et eh, maintenant, c'est confirmé. C'est confirmé, c'est bon. Ah. léegi jéemal xam fan lañ jëm ban île lañ jëm il bu gën a ci monde je te laisse deviner. ah ouais. Mmh, Canari. Non plus. Donc, bah, bah, moi, parce que tu vas pas trouver. Desna, desna, desna, desna. Pas ah, grave, fatera. Bébé, il de Saloum là, les Samir, man Saloum. Bébé, il de Saloum, mais il île du paradisiaque là.

waye dama soxla won serigne bi. ban serigne non sama serigne bi nak fi ci tol bi serigne jegen jegen bi. jegen jegen hmm sen bi génn adno de. sen bi noppaliku kuna. sen bi nopale kuna la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. kullu nafsin saa'iqatul maut serigne bi daga da non serigne bi deena na. bi deena sul suul nañ ko. sul nañ ko fan yi passé. c'est pas possible. serigne bi non man armée lu ko sul dama fay dem serigne bi dafa wara dekk serigne bi yoro suma aduna man ñang yoro suma alakhirah presque nga nan ma sëñ dëggantaan sëñ bi fatuna na dëggantaan bi fatuna bo ba allahu akbar. ay wa oh. la la. no ha inna ah wa déedéet waay. allahu akbar. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kullu nafsin sa'iqatul maut oh. sëriñ bi jàppoon naan du dee. yàlla moom na ko de. buy dee sax du dee léegi. yàlla du tàggu. ah Ilaah waaw sëñ bi day dee. waaw fii du daa

mais xam nga yaay man je préfère mu bàyyi ba tension bi wàcc du ma fa yàgg nag quelques jours rek le temps tension bi wàcc rek yaay incha allah après ma ñëwaat pas de problème. Euh, waxtaan nga ak ñoom. Euh, bëggoon naa waxtaan ak ñoom mais li ma gisee situation bi dañoo aw xaw am kers dama bëggoon na bàyyi ba kersa bi wàcc tuuti. ah parce que fii mu nekk nii bu ñu xëyee dañ may nuyu suba teel rek disparaître ci biir kër dootuma gisati kenn Eva mu ngi tëju ci biir néegam Marichou tàggu na ma nee na mu ngi dem ci Leila. kër taa Leila. waaw ah, parce que yóbbuwul benn bagage. kon baax na. yóbbuwul ci Limia. weekend bi xam naa fa ñëw jaar lii comme ça mu indaale ko. non bu ko indaale parce que atmosphère yi kër gi baaxul pour xale. bàyyi ko foofu quelques jours bu ñu toogee ba ca kanam ba atmosphère bi amélioré wu. ok nga dugg ko dem jëli moo gën. kon baax na. di waxtaan ak ñoom. waaw dinaa waxtaan ak ñoom au moment waxtaan ak ñoom. ok baax na wax xam fa yàgg nag. Ah, defal sa xel ne da war a ñibbi sa kër lu toog foofu. d'accord amul benn problème. nga noppalu. waaw incha allah. soo demee nga oo ma de. d' accord naa la woo. doo may woo. def nga ma lu ma géntul woon lu ma dul mën a gëm ku ma ko waxoon dara gënul kawe fi ma la teggoon bett nga ma yow li nga ma def metti ma ak fi ñu jaar yëpp lii mënuma ko woon sama bopp dafa jaxasoo may gis ay image yu ne bon déjà rassure-toi ñëwuma sax pour toog dama jaar juste pour jël quelques bagages damay delluwaat mais avant ma dellu Marichou bëgg naa juste T'es bien Je ne cherche pas à me justifier là. Mais l'un mon homme. Dis une fille. Sénégal, il n'existe pas un homme qui n'a jamais été infidèle. À moins que mon n'êtes que William. waxuma ko nag pour excuse wala dara c'est un fait T'es man su yaakaar naa man ak yow li ñu su fekkente ni j'ai fait l'erreur de te tromper war nga xalaataat bu baax parce que ba ñu nekkee ba léegi je ne jamais trompé te li am sama diggante yow je pense que mérité naa au moins nga toog am xalaat seetlu parce que man ak Béti erreur la d'accord je l'assume mais benn yoon la am ñaaraatu te sequma benn relation ak moom. pot c'est pas la première fois nga may trompé trompé woon nga ma ak Eva ma ne grawul li ko jural doom rek la mais Pod Pod sa secrétaire Pod nga ñuy trompé ak sa secrétaire Pod t'as pas honte yow da nga sa bopp ba pare ñàkkuloo ñu fayda. sama bopp dafa jaxasoo may gis ay image lan moo la doyul ba nga jug naan dangay wuti leneen feneen lu tax mu doon ku ma xam lu tax yow tànnu loo keneen yaa tax ma bàyyi ñëpp bàyyi samay mbokk yow nga fay ma lii ba ma jox la lépp bokk ak yow benn famille wax ma lan moo nga def ma li ma lan moo nga def lu mel ne Eva eh s'il te plaît s'il te plaît dama may ji même su minute la rek dama la ko ñaan au moins ma wax ak yow que je t'explique Pod aw ma dara lu may wax ak Eva Eva bul fàtte ne tu es la maman ma fille mérite wu ma li may def nii.

dama la waxoon defoo ci dara. waaw waaw. moo tax ma ñew ni ndaw ni ngay fubale man jangaluma la nonu hmm jël bal bi do ko jox kenn. top hmm. flanc gauche flanc droite téye bal bi rek boko pass kenn. di daw ak bal bi kess dañuy waxtaan mom xam nga limay wax may ma tuti d'accord te bëgg nga déglu ma hmm, bu hmm, baax. yow santo Adidas. santo nay ni Jadora. dëgg la ndaw nga sank c'est vrai wala da nga bëgg sol 18 mois yépp non non ah onze onze la bal bi boo ko yoree. Mhm. mais da nga koy paasante boo ko ak gars yi. tout à fait mën ko dóor ci cas yi mu dugg. tout à fait. kayita day jàpp jox saako. Mhm. saako jox maane. Mhm. maane jox ndaw. Eh, eh, yow ndaw jox eh? jóob jóob jox faal. waaye ñu dóor ci cas mu dugg. waaw dañ koy bokk dañ koy paasante. c'est vrai. ah man damaa bëgg bu ñu qualifié ba pare nag ñu def fële dara. yoon la sax. Ah, waaye yow ni ngay defee nii. ah bañ a paasante bal bi bal bi dañ koy bokk de. maa ngi jéggalu dootul amati. waaw yow kenn kenn rek daf ñoo mën a ñun ñëpp a ñuy gagné. Ah, yenn saa yi sax xoolal. bu la neexee sax nga faas ñu ci baara léegi ak règlement yu bees la am na. papa man lu ma dal xoolal li ma sol ni mu rafetee li ma sol dafa naay kii li may wax xam na ko waaye léegi da ngaa xamatul football. waaw lan moo la dal. dara dara dara. waaye xam nga yàlla nag mooy def lu ko neex. faalu ni maa yore du tey fii la yàlla fal bi man. Mhm. ndox da looy doy ndox da ngay. da ngay dama bëgg naan dama bëgg naan. waaw ndax bu bu desee sax ma sangu ci dégg sangu waaw damay sangu bu bu boo ko may. ma desee ma sangu waaw bu desee ma sangu. boo naan boo desee lee ma sangu. indil ndox ma dinaa naan après ñu préparé ko mu sangu. vas-y waaw de ma sangu. vas-y waaw. waaw ndaw. Mm-hmm. bal bi dañ koy paasante de. non non ko paasante li ñu am ni ci football paasante ñu ko may de. Mm-hmm. dañoo paasante paasante ba qualifié. légui nak xana duñ dem fële nag léegi nag di ngay ni ma gis nga def tay mhm. ah dédé d'accord ma lolo tax muy nag non man ma juum dotul amati dotul amati dootul amati koy jërëjëf dootul amati an sama tata diko yang koy dégg ñëpp ñoom may dégg ma ngi leen di dégg ñëpp mhm. yow fan nga joggé ni ah bon gisoo ma sank mhm. ma ngi won estade defar naa lepp kon estade nga joggé estade la joggé bi ngay songale non ay bal bobu nak dang ko waron tek dënn ma ngi fofu la joggé rek ñew fi ok pa ah match bi ah, ma naanu ma de naanu ma jox ko moom naan waaw jox ko mu naan wala bu bu desee na sang nga sang ci d'accord jox ko mu naan naanu bu man mhm. dina problème mhm. man nag man man maa ngi bëgg a dem de ah da ngay dem nii waaw ah, damay dem ok ok léegi yow fan nga jëm da ngay dem kër ga waaw ah, dem dem rek yaa dem waaw damay dem waaye nag caaf ji ok damaa bëgg boo leen ko yéyati ngeen boxam ko ci la leen ko boxam ndax gerte. Mhm. gerte dañ koy saaf. Mhm. waaye bu mu xam. Mhm. bu gerte gi xamee. sa tege da nga yàqu sa maafe dootul neex. dëgg la voilà te maafe daa war a cuq nag. dëgg la voilà man maa ngi dem. ok waaw. dam rek ndax ku demul ren tey nit merci beaucoup papa. Edu sam papa dof na. eh li lay wax nii. Edu man ñàkk naa sam papa xoolal li mu fi toog di fi wax yëpp. yow ki lan moo ko war a dal ba mu ba li yëpp def ko nii. eh déglu ma déglu mu baax ma wax la benn affaire sa papa dara jotu ko dara jotu ko. yow kii gis nga mu fi wax yëpp nga ne sama jotu ko sama papa kay instant yi. ñàkk naa rek mooy def genre yi sama papa ma ko ñàkkee fu ma jëm. eh sa papa dara jotu ko stress rek la du ma ko bàyyi mu ñibbee ci état bi damay xaar mu avancé ma topp ci ginnaawam dina xam fan la jëm. kaani kon de ñu dem. eh yow bougé yow bougé woo. lan mooy bougé woo yow gis nga sama bu mu nekkee nga ne fa bougé woo. c'est toogal fii écoute moi toogal fii man dinaa ko topp dinaa xam fan la jëm toogal. bàyyi ma ànd ak toogal toogal bàyyi man dinaa xam fan la jëm. xol moo jeex ci man ba tax ne yow ngamay may vu Eva xanaa je suis plus ta meilleure amie. Euh, parce que man loolu yëpp d'accord dégg naa la instant yi dama nekk ci problème xaw ma lu may def taluma dara. next ci problème ba man taloo ma lan moo xam. je peux dire que ma cote on est presque séparés. waaw dégguma la da nga ni yaa ko da ngeen a séparé. yow kon fo nek

man de xaw ma lan moo la mën a jaxaseeg Pod lan moo leen mën a boole yow ba ngay nangu Pod di dem Eva xanaa dangaa fàtte ne yàgg sa wujju yéen a nekk seen kër te yemoo leen ci Pod amatuma problème ak kooku tant loolu la di ñaan mais Eva yow danga war a xam ne pot yaa ko jural doom doo leen benn tey jii wan na la ko yow la joteel mu génn kër gi dalaa bëgg moo tax leen nag laa lay xamal dafo jënn jàpp la te jang nga itam dama bëgg nga dem récupérer ci sa jëkkër indi ko sa wet c'est le père de ta fille de salaamaaleykum ki do aji ibi Sofia <laughs> aji ah, Sofia mom ci loolu aji no def maa ngi rek ah, man de xalaatu mo ñoo fi fekk la Ya, sa yagna yàgg na de yagna na trop gëj naa laa gis aji yagna na wàcculoo ne dara naka xale yi ngi fi si jàmm ah aji man xaw ma man daal xaw ma ba mille neuf cent laa la gëj a gis yagna na de yagna na de ah wallaay yagna na an sa njaboot ñii fi ñu ngi si jàmm alhamdulilah ñu ngi sant bu ça va ba jàmm waaw jam la du jàmm nag parce que dama ñëwoon fii am ku ma doon seet ku tudd ma ñëw ba xale ne ma la ñu koy waxtaan Layla. Mm-hmm. Mm-hmm. moom laa ñëwoon seet si. su dee xam nga ne man man maay aji taa Layla. yaay Layla. xam nga nag bañ ne xale nag aji ngeen ma daan woowee. waaw. waaw Layla nag man ñu aji Layla kay moom jeexal nay wax. aji da bëgg ne yaay yaay nabu. maa yaay nabu. na ko baa jàmm. jàmm la du jàmm. aji man ma yaayu sir yow oh, yaay yaayu Wow, waaw yaay jur sir yam. ma jur sir tur ki jam. len nak mo fi aji. nabu dafa nek ak sir deug la nak li am yalla def nako ko kenn mënu ci dara. sama dom la togn na dom jamu togn na sax sa dom lay wax. waye nabu dafa dugg ci viu jamu briser seyu jamu. sir tak na jabar nabu ak sir nekk nañ ci li neex ba jabaram dem na mu doon luma ma metti nag siir gisatuma ko yendalatu fananatu lijjanteetul jabaram motax mané won dina ñew set ci kan mo yaay nabu te bu ma fi ñew xaw mo ne yow la fi fek wallahi mam am lu ma naqar sa fiyaa la fa ma doon mu ko téye fa ko war ko yor sir ñoo tagalama ak mom yah adinam ba ni mu nekké mu nekk ko kon mu naqaree maa ngi ko pële. dëgg la xam nga am nga naqar. waaye qualité yi nekk sa doom. Mhm. duub la mi ngi ci sama bosu doom ndax sama doom mosut a dem fenn lu ma ko mës a wax loolu lay def amul xarit amul àndandoo ba mu duggee ci nabu la changé. te kat leen dinaa la ko xamal. Mhm. nabu nag maa ngi doog a xam na moo tax mu mel ni mbay sa nag tef sax li nekk ci nabu yëpp ba nga cay toll mi ngi woon ci yow. Ah, ba nga cay toll. mi ngi woon ci yow. Lilai lay mëna doon nak Sofia dalal mënuñu sama biir kër di xass xassuma la li am dong la la wax. xam nga dafa am lu am ba des mooy da nga am dom ju goor ne ay qualité ci mom wala yow mi am na wax ne yam qualité ci dom ju góor. masa mhm. man mi jur dom bu jigen jur nag noble. Mhm. muy lingerit. ah kon yow noble nga yor non degluma ya nga nax sa bop nak yow ya nax sa bop yow mi ya nax sa bop yow ya nax sa bop yow noble nga yor non noble pire. Hmm. sa dom rek xelam yobuni may xamé ci sama sama doom mënuma ko mu dégg mënuma ko déglu mu dëjju kon ma nakar moo tax nga génné ko dana ko génné ndax la loolu mooy solution lu solution sa yoon da ci nekk sa ko la ci juroom ñett sa yoon da ci nekk ko génné sama doom la tongal ah dana ko tongal ba mu ne ba nga gën ko génné sama doom la tongal dana ko tong da ko moy nak waaw da moy fa nga ne jabarama dé ya ci doon top yomi mi ndayam man mi ndax xamna ni mom fa mu jëm ak sa doom ndax dafa taawut ba ca dess man ma bëggul sir da xaw ne yaay yaayam man maa leen gën a bañ. ndax xam nga tax siir. man maa leen gën a bañ ndax jekk yaay ndeyam. man maa leen gën a bañ ndax nekk ci yow rek. fukk mi ci siir. sa bàyyi doom. eh sa dama ne la samay kàddu mënu maa jàkkaarloo yow samay kàddu rafet. say kàddu rafet. dama ne la foo baax rek ma ñaar sama foo ma ne la barki fa laa gën a nekk bu je ma ci nekk sama je m'en fous ci loolu. tu t'en fous. je m'en fous. lenn nag naa la ko xamal xam nga lan la dama ne la gis nga nii abal ma man bu eh, ma xamoon ne ku mel ndayum nag man maa ngi door am li ma naqari tànk du ma ko fi dugal sa doom nag abal ma xamal ko ne ko yow xoolal génnal déglu ma du ma la wax dafa jeex dinaa wax li may wax wax gi dafa jeex balaa may génn damay wax sa doom nag xamal ko ne ko baayam lan moo tax mu daw ak loo def baayam yoo am jëkkër am far yére ñaari jëkkër ñaari far ak dogo géej ko la koy daggal di la ko jox ak yéet yow kay yaa jël pee bañ ne jigéen am jëkkër bu fa dañ ne leen da nga am jëkkër mbokk jëkkër jëkkër la xat jëkkër jëkkër la yow da nga jëfane ab par mooy jëkkër yow la nga lay may dogub géej ak dogub yéen cam vraiment bañ ñii man li ma jëkk xool si ba bañ ko nekk du hasard waaye ci leen ma demee Sofia rek ci jamono def na bu ne waaye nga man ko fekk suba bu may xëy wëris nabu fa mu nekk ak séer wax gi dana jeex li gaay de papa bu tandee wasaana wax ji moom day wasaa i imam Marichou Eva Betty. Allah wala tëf amiin. yow xam kañ ngay sëy quoi. ah. kon nañ kon nañ ñaan yàlla yàlla def ñu bàyyi doxal. Hmm? mais loo jëlee sa kër. gàlle. waaw. dem naa ko. ah jël sama bagage gis naa leen ah ñoom hmm? mais. gis naa Eva te li ci gën a positif lu ma ko jël c'est que j'ai compris que Eva au fond xam naa ni baal la je la connais sama jabar la maa ko yar gis nga su ma mer woon dëggantaan ni du ma sax xool ci bët je la connais très bien mais elle m'a regardé et j'ai lu dans son regard Marie-Chana mooy sama problème la franchement ni ma ko gisee tey musuma ko gisee noonu ah. jaaxal na ma trop na

Non la jógee Vediamo che ti provi in foofu Gagnante. ñaan. man ngay tooñ dama koy waat. Chabi. ça va monsieur ça va. ça va merci beaucoup. alors. ça va ça va si ça va mais Comme naa dina la surprendre. ah bien sûr bien sûr mais c'est juste que ni euh, l'anniversaire de mon père léegi mu ñëw. ah d'accord te je voulais lui faire une très belle surprise. d'accord léegi ma xalaat xalaat lu ne j'arrive pas à trouver. D'accord. Après, je me suis dit que ni, est-ce que le mignon gis là, pour lui remettre là, tous ses biens. Dès lors, à la mieux pour euh, lui montrer que ni. Donc, on a mais loolu soko ko mm-hmm. ce serait une très très bonne décision parce que initiative boobu non, am initiative bu ko gën tu sais mom da koy faral di wax té xamna naa doo ko fekkee mais mom fimu mu la teg tegu fa kenn voilà yamalewu la ak dara donc du alal ci en tant que tel mm-hmm. mais mom limuy muy def di xéer di ko xuloo ak yow lépp pour c'est pour ton bien donc je trouve que les soko défé defee di nga ko wan preuve de maturité bo xamante ni mu ngi ci yow donc il serait vraiment content. bon. Sincèrement, je suis vraiment fier de toi et content. Non, mais voilà, ça mon papa là, euh, je veux juste lui montrer que nous du xaalis pour Mon a si je boobu mon la donc euh, on donc ma décidé je sais pas comment ça se passe mais. bon c'est vrai que bon dossier par contre euh, je ne l'ai pas au complet mais bon on a le signer loo accord de principe. d'accord comme ça su ma jógee fii nii après damay dem boucler dossier bi. d'accord ok vas-y donc tu me signes ici. fii voilà super. ah. en tout cas que dina ko non mais je là moom j'étais bien dis def <laughs> lu gën lii nii quoi sincèrement lii nii moom def lu ko gën quoi sincèrement et je suis très très content tellement les encourager. en plus de les féliciter hein, pour ce mariage je j'ai pas eu l'occasion donc euh, voilà souhaiter aussi tout le bonheur pour ton mariage et tout parce qu'on l'a su mais, il bah. de toute façon <laughs> ce fut un plaisir merci. Mike Mike non non non ne t'inquiète bah, pas une autre chose c'est une surprise. non non non ne t'inquiète pas pour ça. allez au revoir aussi. allez au revoir merci allez au revoir. géntul woon lu ma dul mën a gëm ku ma ko waxoon dara gënul kawe fii ma la teggoon soruma lii bett nga ma yow li nga ma def metti na ma yaa ngi toog bon réfléchir naa bu baax je me demande Pod tey jii suñ ko récupéré wul kon ñun na la ñuy def. xanaa ah, da jot a wax ak moom sànq. bëgguma woon sax moom. mais dama toog xalaat xalaat bu baax pot suñ ko jëliwul lu ne mën na xew te man Mia laa si Mapod dafa am ci luñu jogé ni mu ñëw def ñu li man dara instant bi Eva pareeguma instant bi xam naa mo muy soulager ma dem sama kër tok réfléchir bu baax xam lu may def ak lu ma doon def franchement. waa ah, tal bu baax. da nga wax ba ma jox la lepp bokk ak yow benn family